Matthieu saar benn walla ci lindiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yeesu ni ko yàlla jaarale ci Matthieu lii mooy cosaanu yéesu kirist sëtu daawuda sëtu ibraayima ibraayima moo jur isaaxa isaaxa jur yanqooba yanqooba jur yudaa ak i doomi baayam yudaa fares ak saara ci tamar fares esrom mi bàyyu aram aram aminadaab aminadaab nason nason salmon salmon jur ci rahab doom ju tudd bowaas bowaas am ak ruut obed obed jur yeese mi bàyyi buur bi daawuda daawuda moo jur suleymaan ci ki nekkoon jabari uri suleymaan jur robowaam robowaam abiya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 gis nañu ne dafa ëmb ci kàttanu xel mu sell mi jëkkëram nag nekkoon na nit ku jub te bëgg ko wan weer mu nar a moom ci sutura waaye bi muy xalaat ci loolu benn malaakam borom bi daldi ko feeñu ci gént ne ko yow yuusufa sëtu daawuda bul ragale yeggali maryaama sa jabar ndaxte doom ji mu ëmb ci xel mu selli mi la jóge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 waaye àndul ak moom ba kera mu mucc jur doom ju góor mu tudde ko yéesu